jungle salaamaaleykum mbooloo maa ngi leen nuyu di leen fas yéene jottali action bi amoon fii mhm. sama rakk mokke yoon di sàmm mhm. ñëw ci mbooy bi ngeen taxaw nii léegi boroom tool ñi fekk ko foofu ci mbooy bi ñu amant ak ñoom histoire léegi ñu ñu gor leen gor ko bee dànkay dagg tànka benn tànka bi dagg fii fi ma takkaw nii foofu la tëdd mu ngi nii fii ci ngeer yi nekk léegi am benn sàmm bu ci tombé woo ma téléphone mu wax ma Daouda Ka dagg nañ tànk dowal ñëw ma ne ana ñi daggoon tànk ñu ne dow nañu léegi ma takk foofu sareen ñëw bi mu tombee ci Daouda Ka desewul dara fekkee dem na hmm. léegi ma woo chef de bi ma laaj ko mi ma commandant bi mu ne dafa dafa daanu ak portable beneen bi léegi ma service bi léegi mu jox ma commandant bi ma ko ma expliqué ko léegi moom mu ñëw woo sappoor ñëw fekka ma fii fi fi ñu taxaw nii commandant fii la ma fekke maa ngi tiiw tiim néew bi léegi mu costas sappoor ñëw costas ñoom ñu yóbbu seen néew léegi ñu film fii yëpp ñu ñu fekk fii ñeenti sareet ñeenti sareet ndax fii ci mbooy bi lañ ko fekk léegi ñu jàppa ci naar ka ak am dikkaan mhm. léegi ñun nag ñu lu ñu métti mooy du ñooñu kese ñoo bokkoon ci ndax am na sama benn jerbaat bu àndaloon ak booy bi mu ngi am bi kii gaañu mu ngi am fukki at juróom léegi mu ne du ñaar ñooñ ñoo ko rey am na ñeneen mhm. ñeneen ñi bokkoon ci histoire bi am na ku jóge tool bee ñëw bay foofu soxnam am na ñeneen ñi jóge tool bi di doon naaf ñëw bokk ci histoire bi léegi yéen yow yow bi ñu ñëwee tiim ko lana fan nga gis ñu gor ko lan ak lan ci tànk bi rek ko ko tànka bi dagg nañ ko mhm. fii des tuuti mhm. léegi ñu gor ko fii ci ci ci pooj bi constat bi constat bi jàpp na ko même ci bopp bi am na gor it léegi mu ngi tëdd fii def san euh, commissaire bi mu ñëwee for na fi ay dàll ñoom for nañ fi ay dàll ak ay yet nañ la ñu reyee nit ci biir tool dàll yooyu desuñu foofu ah, ah waaw ak ak ak tengaadi yooyu ah, ak yet yu gudd yooyu hmm. gopp yooyu kon kay fekkonte ne ci biir tool bi lañ histoire bi amoon matériel yooyu duñ ko fekk fii. kon yéen jàpp ngeen duggul ci biir tool fii lañ ko rey fii lañ ko rey loolu lañ ñun moom loolu lañ jàpp. Mhm. waaw man ma toll foofu ci histoire bi ñu ma tedd fii. Mhm. di nan lañ koy reyee ci am problème amee ci biir tool mu dow be fii tant be bee kenn mënul dow. Mhm. waaw na mu def liggéeyam ñu jàpp ñeneen ñi des képp ku ci bokk. nañ yoon def liggéeyam téye ko kee bu ñu nag commanda brigade bi kee bu ñu ci kenn nagu def continuer ci liggéeyam mhm. léegi képp ku ci bokkul ñun suñu yoon nekkul ci moom mhm. waaw maire bi ne li mu intervention li mu wax li mu wax de fekkewul commandant waxu ko ko euh, sëñ naar kan kooku waxu ko ko léegi pour lan muy muy muy seede li mu fekkewul mhm. waaw loolu moo ñu gën a métti nag ci maire bi loolu gën a métti ndax moo ñu uufi ñun ñëpp waaye warul def par parparloo de ñun par parparloo lañ ko gis waaw mu nag bëgguñu romb yoon yoon na mu def liggéeyam merci